الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu fas yéene ñëwaat ci 1584 ci ndimbalul borom bi toll ci jamono jën toll nga xam ni ñu ngi dagaan karti électeurs yi nga xam ni ñooy fal ay maire ak i conseil yi maire nga xam ni buñ ne lu ko tax a jóg mooy defar am réew am réew nag ay gox la yu bari yu daje gox bu ne tudd ab commune commune bu ne am maire bu koy jiite ak ay dagam muy ay ay conseil eh, kon nag ki jóg fekk nit ñi wan leen luñ tudde programme wala mu fekk nit ñi wan leen lim fi def ndax moom moo fi nekkoon ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk na nga seet yàlla ci li ngay wax ndax am élégance mën a wax rafet programme ngir am looy wut ba am ko daadi jël waneen yoon jaar ca di leen xaarloo di leen xaarloo ba sa man laa jeex loolu day am na lu ko gën danga waxan lii def lee waaw mbokk yi waaye yow mi yàgga fekke yàgga wote walla di soog a tàmbalee wote li ci réew mi léeg ci ump lu bari ump la ci ci ñi ni woo ngir ñu woteel leen ni ñuy jëflanteeg nun di nga faatu dekk ñu laaj la ñi nga daa woteel te bu ñu toogeet gis nañ ni réew ma wala gox ba duñ ci gis seen bopp lu tax nga leen di woteel loola tontu bu jub moo fa baax bu booba waaw sa njëriñu bopp rek bu mu tax ngay woteel nit ki bu mu tax de bu tax de kon mbokk mi nee na léegi su fekkee ni fi nga ne am na ñaar ñoo xam ñett kenn ku ci nekk ñëw na seet si la ni la dama bëgg nga dama bëgg nga jàppale ma muy yow bu àggee bis ba nooy def waaw ni ngay def mooy nit ki daa war a am ràññetle ñii koo ci jàpp ni moo ci jub waaw kenn ku ne la ko xamal nga xool ko boo ko xoolee nat la laajte waxtaan ci parce que war na la koo jaral nag waaye nun daanaka dañuy jullitu Sénégal yu bari dañuy ñaxtu ci ni dañoo jox lislaam ab cër dañoo nangam waaye dugguñu ci mbir mi au fond au fond dugguñu ci waaw ñu bari dugguñu ci dañuy yor seenu carte woote ci ñu sànnil kenn waaye bu bu lu naqar lislaam ñëwee ñu commencé rek di kaas rek rek rek waaye buñ ko doon def ci wote yi di sanctionné ñi nga xam ne xam nañ ni kii deful ak lislaam dara lislaam gisul boppam ci ngóoram gi ci ayam gi kon doom neex ndeyam doom neex ndeyam waaw luy ndey yàlla tëral nangam indi ci ayab alquran nga ni wew wew weeral judd fi kanam sunu boroom màgg fi mu jox la pouvoir nga def say pexe dindi loole am aaya alquran ndax lan ndax laïcité lan toll léegi dañoo moderniser yooyu que dañ leen tubaabise rek lu koy tubaabise la rek yow ànd ak moom ci loolu nag boo liggéey bu tax taa nga amee ci ñu jiite woon euh, ca ngay bokk rek ndax lan danga bokk ak ñoom ci seen liñ tudde teraanga fii ci àdduna alakul xaali waaw kon bu mbooloo ñëwee yow tànnal ka xam ne moom moo ci gën a moom moo ci gën a baax le programme te programme ba mu bañ a am lenn loo xam ne lii gis nga ni lii baaxul ci réew mi wala baaxul ci diine ci bu ci amee rek ñoom yëpp teg leen fële ni tege te yow téye saw carte ndax bon dafa war nit ñi au nga di ko encouragé nga di ko encouragé mu ni waaw léegi comme euh, daa dégg ci jànkati ñu ni yàlla nee na lañ ko topp topp yonent bi alayhi salaam topp seeni njiit waaw atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum surat nisaa aya cinquante neuf bu ma suñu booba ma ngi koy wax loolu topp leen yàlla topp leen yonente bi ak ñi méngoo seeni mbir ñooñu ñan la ñooñu nag moo am ay leeral yu am solo yu ci boroom xam-xam yi wax ulul amri ñu ne ndax mooy tàmbale ko ci président Macky Sall mi ak ay dagam ah am ñu lu waaw ulul amri ndax moom mooy Cheikh Mountakha Bachir Babacar Mbaye Mansour ak xulafa yépp ah wala ñi yore association islamique yi ñoom it ñu nekk seeni membre mu mel ni nga ni ku mel ni euh, docteur Lo ak ñi topp ci ginnaawam ak yu mel noonu wala boog dañuy delluwaat ci suñuy njiit ci lislaam ñi nga xam ni histoire moo leen tas jiir waaye ñooñu ñu ne ah, nekkatuñ fi nekkatuñ fi te am na yu bees yoo xam ni day xew léegi léegi nga dem doo ko fekk ci téere ngir nga wut solution kon da ngay jëkk dellu siwaat ci ah, bu fekkee ni danga ni ñi yore réew mi ñooñu la ndax am nay jànkat ay jànkat yu koy firee noonu ndax ñoom dañoo ànd ak ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo jiite réew mi jiite réew mi salaam wax na bu baax nag ci ñuy topp yàlla moom di jëf moom lim santaane moom alayhi salaam di jullee ni mu daa jullee waaye nag ah, mu fassiroona yi wax nañ ci lu mel noonu jëlee nañ ci anas ibnu malik mu jële ci yonent bi salaam wax ni ismau wa atiu wa in istaamala aleykum abdul abashi jële ci ibnu abbas radiallahu taala anhuma mu wax ni alayhi salaam nee na man raa min amiri i shay'an fal yasbir fa innahu laysa ahadun yufaarixu ljamaata shibran fa yamuutu ila maata euh, euh, miitata jaahiliyati ak beneen boo xam ne muy jóge ci ibnu omar radiallahu anhuma moom it wax ko waaye bu leen fàtte laa taa'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq maanaam alayhi salaam daa bëggoon nit jullit yi ànd bañ di tàqali ndax sunu ànd la yàlla santaane sunu tàqali ko la yàlla tere waaye ci benn aaya ci la ko wax waaye ànd gi moo ni jox doole tàqali ko gi moo ni néewloo doole ànd gi te yàlla tax mu lépp ak jaamu yàlla lay doon ci la ñuy amee lañ bëgg tàqaliku ci la ñuy néewe doole def lu yàlla bañ ci lañuy ñuy ah, gis nga ko ci la ñuy échec waaw waaw wa tas ab tas xaba riixukum mu ni ismao na ngeen dégg na ngeen di diglu waatio na ngeen di topp doonte ki nga xam ne moom ngeen topp moo leen jiite dafa nekk jaam boo xam ni jaam bu dëkk ci xabas la gis nga kon kon ndekete njiit tamit nekkul ci eh, xeet sàngam rek mooy jiite réew sàngam waaye yeneen xeet bu fa nekkee rawatina bu dee diine nga xëy amul frontière ndax abash ak Makka ak Medina xam nga li bokkuñu ndax abash mi ngi ci Afrique donte benn jaam lu bu dëkk ci Afrique nekk njiit bu boobaa na ngeen ko topp gis nga ko beneen addis bi mu ne ku gis gis ci yéen ci njiitam dara nena na ko muñ ndax bu kenn euh, di tàqalikook mbooloo mi lu toll ni chebre rek ndax bu ca faatoo déewul ci lu rek dee na ci ak jaahiliya jaahiliya gën a moom nañ ci yàlla musal gis nga kon waaw waaye nag man mbooloo boroom xam-xam yi ni man mbooloo mbooloo mbooloo sàngam lay wax waaye nag laa taa'ata li maxluqin fi maasiyati al xaaliq deesul topp kuñ bind li maxluuq la wax de rek ci lan ci ak mooy yàlla kon njiit li kay su su jaarul ci fi lislaam santaane kon waxuñu la njiit loolu wala boo ko dee toppit ca la dëppoog lislaam ca nga koy topp bu ñu tànk bu ki ngeen ko fa ñëll loola jéggi loola dem yow xaar la nen waaw ndax lan ndax bañ a ah, tàqali ak aljamaa muy mbooloo mi gis kon alislaam leeral na lépp jël nañ ci naafi an ibnu amarin radiallahu taala anhuma mu ni jël nañ ci yonent bi wax ni asamaa wa taa ala almari almuslim fi ma ahaba wa kariha maa lam yu'mar bi ma'siyatin fa izaa umira bi ma'siyatin falaa sam'a walaa taa'a allahu akbar kon lii moo gën a leeral sax li euh, mbokk mi laaj nee na ah sam aw taa daal maanaam dégg ak topp war na ci waayu jullit bu ne camus jullit bu ne ci loo xam ne lii daa dajeeg bëgg-bëggam wala loo xam ne lii sib na ko feek diggaluñ ko ci ak mooy yàlla rekk ka nekk ca ka koy digal lum ko digal bu fekkee dëppoo naag bëgg-bëggam wala dëppoowul da koo war a jëfe dégg ko topp gis nga ko waaye feek digaluñ ko bi maasiya ci ak mooy yàlla mu mel ni yëmul foofu fa isaa umira bi maasiyati nag buñ ko digalee ak mooy yàlla nee na bu waa falaa shamaa wala taa du dégg du topp gis nga yaa man maay man bàyyi faalu Macky Sall ab julit waaw Macky mooy suñu njiit réew di ab julit la waaye euh, règlement xaanoon bi mu yor constitution bi mu tëral boobu nee na moom bu laïcité lay laïcité nag moom dafa jaar soow diine jaar penku bokkuñu luñ gën a dox di gën a soree yoon waxee boo jaaree loo gën a dox di gën a lislaam la kooku nga ñëw kan la ca bopp ba nga bëgg a wane ni man maay ab baay faalam loolu fu tegu loolu loolu fum mu tegu waaw kon mu ni solo nañ ci aliyu radiallahu taala anhu mu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa amara alayhim rajulan fa xadiba alayhim yawman fa awxada naaran fa xaala udxuluha fa araada baaduhum an yadxulaha wa qaala baaduhum innama fararna min naar falaa nadxulaha fa dakkaru dalik nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala law daxaluha maa xaraju minha abadan ndax lan laa taacata li maxluqin fi maasiyati llahi innama taacatu fi lmaaruf <laughs> nee na dafa am benn bis alayhi salaam yebal benn armée léegi nag bi mu yebalee armée bi bi mu yebalee armée bi euh, benn waay mer daal di taal sawara daal di wax ni leen dugg leen ci sawara yi ñenn ñoom bëgg caa dugg ñenn ñoom ni nuy daw sawara ah tax lu ñëw dugg ci lislaam nun koy sawara kay nun koy dun ci dugg loolee nee na bañ ñu ko waxee yonent bi alayhi salaam dafa xam ni tey bu ngeen ci duggal de du ci mus a génn ba faw mooy kii ki ko digal ndax teg ci lan mu ni laa taati li maxluqin duñ topp nit fii maasiyatillaa ci ak mooy yàlla inama taatu naka ak topp kay moom fil maaroof ci luñ xam la loo xam ne xel da ko nangu mooy loo xam ni moo jaadu lu jaaduwul kenn lu ci topp njiit kenn du ci topp njiit waaw wax na ci lu bari wax na ci lu bari waaw jël ñu Abdullah ibn Mas'ud wax ni ni la asa wa jàlla la yu ayedu xasa diin bi rajulin fajir nee na suñu boroom mm, dina jël waaju kàccoor mu teg ko ci bopp nit ñi mu dëgëral diine yàlla dina dëgërale diine ci ab kàccoor sax gis nga loolu am na fi ba tay Safi ibnul Yamaami dafa wax ni laa yab'asanna allahu alaykum umaraa yu'assibunakum wa yu'assibuhum allahu taala fi naari yawm alqiyaamati mun yàlla dina yónnee ci yéen ay njiit yu len di mbugal rek waaye ñoomit it yàlla mbugal leen bu yomal xiyaame gis nga rek coobare sunu borom ci yàlla waaw kon nag mbugalum àdduna mu jóge ci buur nga di julit di dund sa diine metti na de waaye mbugal ku yam fii moo gën mbugalu yomal xiyaam waaw ñu jël nañ ci ibnu Moussa ah, jël nañ ci solo nañ ci Moussa ibnu Ubaydata an Ayuba ibnu Xaalid mun yont bi nee na sayakun alaykum ba'di sama ginnaaw di am na ay njiit ay njiit dina am yaamaluuna maa yunkiruuna dañuy def mbir ba yàgg ñu weddi ko dañuy def di weddi wa yaamuruunakum ñu leen di digal bi maa laa yaamaluuna lu ngeen dul def wa ulaayika laa taata lahum bu nee ñooñu kenn kenn kenn waru leen a topp waaw waaw sa yakuunu alaykum baadi umaraa yamaluuna maa yunkiruun ko kenn du ko taw waaye amuruunakum bi maa laa yamaluuna ñu leen di sant loo xam ñoom duñ ko def fu ulaayka laa taata la um nu nag léegi ah, daanaka ah, ay tappale ñu bare bari ci li ñuy jaar ba jàll doon kaneen nit am ñeneen nit waaw génn ci catégorie gi nga nekkoon at yu néew nga nekk milliardaire waaw waxuma sax euh, da nekk njiitu réew waaye njiitu réew bi moom moo la teg loxo rek nga daal nekk am milliardaire mbokk yi kon waxtu jot na duñ ci gën euh, bu baax bala ñoo woote incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarimi silmilan ala siradi bi furudin wa شكرته لأنه قد ساخني لوتني به نفى ما أنفني